koy donc ñoom dañuy waxante y des gens qui surveillent au cas où de la police euh, des frontières wala xaw ma lan nu mu tuddati. information et même des gens qui surveillent. en mer au cas où marine nationale fan la toll parce que la marine. est alerté fële information bi day circuler seen biir lu mat benn deux semaines. nga gis kii kii jóge Joal. il met en place un système de surveillance léegi bi foofu la. ñuy jël c'est-à-dire il faut ma bay wax cest à mat deux semaines kii jóge Fatick. kii jóge Mbour kii jóge Joal. ñu daje sa quartier ba ñuy daje. ba ñëpp mat. ba heure tëmb bi. jot ma parce que yow information bi si toi tu connais cette information en principe les autorités doivent la connaître. Hmm. ils sont informés. xam nañu ko boo demee ba xam loolu. xam nañu ko ça veut l'État est ko je crois donc l'État peut arrêter avec quoi. quel moyen il nous faut des aéronefs pour surveiller les côtes. et encore. waaw ah. parce que Nabiou marine nationale lañ ma jéggal. mais peut-être c'est des moyens inadaptés ñaari moteur la ñuy yor. ñaari moteur il faut une surveillance mais Mame Mbaye man ma question c'est que ñii nga. xam ne ñoo organisé li mel quand ils voient des jeunes mourir ils se disent quoi ñii nga xamante ne ñoo nekk derrière toute cette organisation. asma yooyu. asma xale yi bu ñuy déggee ñoom lan la ñuy wax. ñoom yaay yaay toog fii naan ñoom business investissement la ñu def. retour la ñuy xaar sur investissement. ñoom dañuy dugal seen xaalis waaye xale bii xam ne su ma demee dee nag boo demee dee du lal da ngaa xaru. la pression sociale magam jëmbalañ du ñu ay xale. lu mu dee dee di nga am 21 ans jëm kaw. lu mu dee dee 18 ans waa léegi yow boo jëlee sa xaalis dugal ko foo xam ne da dee. yow yaa xaru. mais Asma nañu waxante dëgg. ab drogué bu dee ci overdose. qu'est-ce que de drogue. xam nga ne li baaxul. yoonam newu ci. toi tu gères ton business récolte tes millions tout en sachant que peut-être gaal gi du yegg pourtant tu as encaissé de dëgg. yoonu suuf gi ak yoonu géej gee yem. xaru Sénégal nee ñoom dañoo jàpp ne peut-être toog Sénégal risque la dund gu dee gën la mais lu mu dee dee yaa ngi fi say mbokk ñu ngi lay gis. en tout am na ñoo xam ne jógee nañ seen. garaaw ñëw fii de lijjanti xaalis. delluwaat delluwaat nga li may wax ne am na ñoo xam ne kii bàyyi ko muy wax rek bu ñu gisee gaal bi. c'est très yéen a kaay groupe des médias tey kan moo yëg ci kaw turbine bi ba tey ñoo ci mbëkk mi buggaan ngay dal ni mooy joxuñ baaraam nee nañu fii ci réew mi au moment wu ñuy wax kon dix mille deux cent kilogrammes or yu nga xam ne ni daanaka deux mille vingt deux bi ñu xaymaa ca duggu jëlee nañ ko fa donc or bu desul Sénégal dañu koy jël rek mu dem après ñu mu wiiri ñëwaat. coppet yóbbu. ndaw ñi. Mm-hmm. dinañ yi ndax lan amuñu pexe. lii nga xam ne moo ñu waroon jariñ war a suqali suñu réew ba ndaw yi man fee des muy or bi zircon bi phosphate bi manganèse bi nga xam ne daanaka dañu koo caxat caxatee waaye léegi ko ndaw yi luñ fi des li nga xam ne moo ñu waroon moo waroon suqali Sénégal ba ndaw yi amul xëy wala au moins ñu am si jàpp nee na lii yëpp bu fekkee dañu ko caxat caxatee ñun mënuñu koo teg bët ñu koy jëlee coppet di yóbbu ndaw yi tamit ñoom i coppati seen bopp rek teg barça rek mbëkk baa suux ñoom lan lañ ko jàppee moo tax démb li ñu gis fii nga xam ne moo di wakkaam yéen ñu bari yéene kaay bi yemu sa de dafa def xayma 332 ci ay doomu aadama yi nga xam ne ni ñoo faatu diggante Dakar Saint-Louis ak Kafountine Antoine Félix Diome nee na gaal gi nga xam ne moom moo chaviré avant-hier laaj ma fu mu bawoo fu mu bawoo wax ne ñii njëkk faatu ci mbëkk mi lu ci ëpp Caaroy la Caaroy mm-hmm. ñi ci ëpp lu ñu faatu Caaroy mm-hmm. mbëkk moom yi la ñuy desandi daanaka yéenekaay yu bari da si la si dikk. mais déjà yéenekaay yu bari si la ñu dikk. mais proposition Boubacar Boubacar Sèye. Mhm. par exemple les assises. Mhm. de l'immigration a ci. le thème mooy yéenekaay daal di dikk. aywa nee nañu baax saa wala baax saax. Mhm. xale yi xam nañ ne ñu si bari buñ tëmbee suux moo gën a moo gën a wóor si ñoom. ka dem fii nga xam ne moom mooy barsa ndax lan période nawet bi ñu nekk. ndaar gee ñoo gën a xam ne pour nga traversé mbël ma ni ñu koy woowee. Mhm. fii fii fii fii géej gi da jeex. dex gi. wóor na yàlla dafa am noo koy traversé. boo dul ah. mool dëkk dë boo dul mool dëkk sa dëkk ba. Hmm? doo xam ni ñu koy traversé rawatina nag mu nekk nawet. da ngay da ngay tuuru nag. am na nooy traversé da ngay suux <laughs> ci biir. da ngay tuuru de. Barça wala Barcelone dix-huit morts la ñu wàññi hmm. démb fii ci Wakam. ñu leen di comme ay ay ay wañ léegi mbëkk mi nii en lay rey. rayatul par détail. imagine-toi de Thiaroye à Ouakam 18 morts. 18 morts ñuy simpi di teg simpi di teg simpi di teg ci tefes gi ba mu mat 18 lan moo ko waral benn mouvement de panique. ah. Hmm. ndax peut-être ragal nañ ñu jàppale ñoom ñoom ñu tëbandoo. ñu doxe ba ñàkk see bakkan président Macky Sall daal di bind moom it tiwite daal di jaale na solo yéene kaay ne nañ ko wax rek te des dix-huit morts destin échoué vraisemblablement waaw l'embarcation de fortune et ses passagers voulaient rallier l'Europe ñëpp xam nañ ne ñi ki dañ doon bëkki dañ doon bëkki rek information bi dafa doon ñoom chavirement d'une pirogue de migrants wakaam compte les morts parce que démb li am wakaam ba fa de comme film horreur mm. comme film horreur da ni gis ñu leen génne par benn ci ndox mi gi gis nga. ràññale bu du dara rek seddaayu ndox mi seddaayu ndox mi rek da rey laata laata yow ngay lab. ñu woo seddaay bi rek da ngay karam. moment bi de moment dem géej xam nañ ko mais terewul il faut ñu dem loo ci mën nee nañ bu doon bu doon euh, euh, sinébar bu ñu jël la overdose la ñu toll fu mu nekk nii. Mm-hmm. overdose la ñu toll ndax limu ñuy faatu nii dafa jéggi dayoo. l'enquête yéen moom moo ko xam ne. 15 morts lañu jëkkoon wax 3 rescapés si mujjantal gi ñu ne 18 ñoom ñoo sa ñàkk seen bakkan ay révélation daal di si am jëm Barça wala Barcelone yéene kaay bii di libération daal di si daal di si dikk 15 corps déjà repêchés d'autres sont restés en mer selon les trois rescapés waa léegi ña des biir géej fu ñu ne gaal gu suux seddaay bi fu ñu ne démb de dañoo suspendre woon recherche yi xëy ñu commencé waat ko tey. ñi mën a fee fee nañu génn ñi mënul fee dañuy des ci biir ndox mi. ñi si ñi si des dañuy teer si yeneen i ay tefes. Hmm. bu sama sa bopp yeneen tefes dañuy teer. Hmm. réew mi quotidien daal di siy dikk. Antoine Félix Diome daal dina say wax les jeunes tombent comme des mouches loolu ñu ñëpp ñoo ko xamandoo fu mu nekk xale yaa ngi dee comme ay ay ay wañ léegi fa yéene kaay seen horrible mooy film horreur bi nga xam ne démb daanaka gis nañ ko foofee sa euh, wakaam xale yi di faatu si anam gu doy waar Antoine Félix Diome nee na du ñu mu sedd lii du ko bàyyi ndax nag ña nga xam ne ñooy convoyeurs yi bu ñu leen tegee dinañ leen teg ay sanctions yu nga xam ne nii dootuñu ko defati. Eh. yow boo defaree sa gaal jël dugaloo sa doom dugaloo si kenn yow doomi jàmbur rek ñoo siy dugg xibir yéene kaay daal ñu dikkaat euh, ci maître Khoureychi Ba Cheikh Khoureychi Ba ba nga xam ne daanaka avocat Sonko la démb nag gis nañu cinquante cinq jours après mm-hmm. barricade yi wër ndomb ñu waroon ndomb kii di kër Ousmane Sonko yee yeewi nañu ko moom waa yeewi askan wi yeewi nañu kii nga xam ne moo di euh, Ousmane Sonko yéene bi daal ci euh, dikkaat ñu jàll ci Odia nag yeewi bu ma yóbbu ci ojaay yooyu. année le le fu mu ne. ojaate artificiel la ma def. ay ci andi le mandat dafa dikk. ci Bougane Gueye Dany nee na nag loolee nga xam ne dañ koy jaxat jaxatee bés bu yàlla tax muy lu moom suñu ressource naturelle yooyee faw nag ministre bi ñu dénk wàllu miin nii di Omar Sarr mu wax ci lu leer mu wax ci ñii nga xam ne ñoo ko jël def ko seen lu bopp te teguñu ko fenn. Bougane Gueye Dany ci le euh, euh, mandat mooy ni xam ne ñu daal ci le peuple le peuple dix-sept migrants les premiers éléments de l'enquête yéen i daal na siy dikk kii di Antoine Félix Diome fëgg na si taabu ji nee na faw nag ay daan daal di am convoyeurs yi ay sanctions yi metti mu ngi leen di xaar pirogue yi nee nañ nag soo moytuwul caaree la jóge ña nga xam ne jot nañu leen a teg loxo wala sa téye nañu leen mooy rescapé yi ñu ngi leen di auditionné sa gendarmerie ñu dem ci le même le point le point xaritu Mamadou Fofana Touba ak waa njiital Lonaas Mamour Diallo nee na na gars yi di wax rek lu ñu wax baax ni waaye moom day liggéey. te fu mu nekk nii li muy liggéey du lenn lu dul. dara deful laata màggal gi di ñëw. mënul wax ne ndox du faam ndax taw bi kenn mënu koo téye. mais moom dina liggéey ba nga xam ne màggal gi wax fa dañoo yàlla lépp dina aw ci yoon ko ba mu tawee ñëpp a tëmb Touba. Mbadou. aywa ana ana wax rek. ci jox ma ko ci ginnaaw chimère. jox ma ko jox ma ko ci ginnaaw parce que ki ma gis ci ojaar bi dafa am ku may niru <laughs> ki ma gis nii ci ojaar wax dëgg la lii dëgg la dëgg la dëggantaan ah moom dafa fa na. Hmm. nit ku mel nii dëggantaan. Hmm. mu soloo ci mbedd mi nii. Miss Adji Sarr ah. Hmm. Miss Adji Sarr. Miss Adji Sarr kii kay wala Miss mais yàlla na xel dee. aywa mi ngi doon lan moo gën a fës ci bopp gi. fekk man dama koy xool rek ne yàlla na xel dee. aywa lan moo gën a fës ci bopp lii moo gën a fës yow asma lii. déedéet lii fësul dara. lii déedéet aywa. dem na Saint-Louis. aywa yegg As Bernard. aywa. Saint-Louis As Bernard la boole. ma bay juróom-ñetti waxtu benn simili. aywa lu gën a fës. no comment. aywa. ay ca la gën a fës mbëkk mi Barça wala Barcelone ay new yu nga xam ne sippee nañu leen sa wakaam pe groupe mosquée divinité 18 lañu wax ne ci lañu ñu toll fukk ak juróom-ñett en tout cas bilan provisoire la gaal ya dañu fa suux euh, daanaka nag ñooñee dañoo njort ni dañu bëggoon dem sa biti réew taw meeki njombeem fii ci diwaanu Ndakaaru tax na naam nag tàngaay bi wàññeeku waaye askan wi nañu ko dundee jéggi na dayoo moo xam sa Tëngéej ak Kër Masaar 72 heures la ñu woote mu di grève Bangkok yoxoo liggéeykat yi aftu yi mouvement d'humeur boobee daanaka démb liggéey ña demoon ñiy baaxoo di liggéey di jël bus yi ñi ngi woon ci ay jafe-jafe te dara war lu ko du grève bi daañ si àndax Tidiane Diallo ci ab reportage jeexale ko li yéen kaay xëy fësal Ahmantulaay Cubundooy faram-fàcce gi dinañ ci àndax Simon Faye le sage de la maison le pertinent Mamadou Fofana